ngeen jëf mbokk internet bpactu.com ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal te ñëwaat ak yéen ci seen yeneen i xibaaru Actunet comme ni ñu amee habitude ci ànd ak yéen saa su nekk ci seen xibaar yi gën a fës ci réseaux sociaux yi ba nga xamante ni moo ci jiitu nag bokk na ci jàngoroy coronavirus bi nga xamante ni lëmbewaat na réewum Sénégal askan bi nag jamono ji ñoo ngi dundee nakar ak tiis ndax ñi nga xamante ni ñoom ñoo ciy génn àdduna rawatina cas yu bari yi nga xamante ni moom la ñuy faral di am bés bu nekk ba tax na saytu nañu ni depuis le mois de mars 2020 ba suñu joonu yàlla tey ji lu ci 1300 personnes daal di coronavirus bi waaye nag nombre de actif bi nga xamante ni moom la ñu am jamono ji mi ngi toll ci 11000 ak lu topp looloo waral démb suñu njiitum réew daal di wàcc ci euh, li nga xamante ni moom moo di hôpitaux yi dem saytu ji malade ya fa nekk waaye tamit xoolaale personnel soignant ba naka lañ fa toogee donte sax ñoo ngi dund ay jafe-jafe ndax ñu ci bari ci ñoom jamono ji feebar nañu ndax nelawatuñu ba yandoor lekkatuñ ba suur malade ñoom ñoo dem ba déborder leen médecin chef yi sax nee nañu dañuy dund ak stress bu méttee méttee métti looloo waral ñu daal di annuler lépp loo xamante ne rassemblement la woon fii nii ci diwaanu Dakar ak li ko war li nga xamante ni moom moo di combat de yi lépp daal di nañ koy aj muy Gaston tëgg yi Pape Abdou Fall tëgg ak ñeneen ak ñeneen amul wenn combat de boo xamante ni autorisé nañ ko mu am ginnaaw ba leen ministre bi woowee démb toog di waxtaan ak ñoom dalee naa waxoon ñu daal di koy def huis clos total mu nekk loo xamante ni nag nanguwuñ ko benn yoon ba tax na am na ci ay réaction yoo xamante ni promoteurs yi ñoom ñoo ko def tey beneen bi ci topp nag kii nii di Doudou Dane Déco nekk le président de amateurs def na réaction moom nee nañu bu fekkante ni amateurs yi mënuñu dugg biir stade euh, teewee li nga xamante ni moom moo di combat bi soxlawuñu toog seen kër di ko seetaan ndax ñoom pour ñu yëg làmb dëggantaan jaay faaw ñu nekk ci biir stade bi maintenir le 31 juillet bi nee na nag dafa daal di delloo xelam ci yàlla rek rawatina ñi nga xamante ni ñoom fi génnee àdduna mu daal di jël lépp daal di koy teg suuf ba suñu borom di dogal combat mi mën a am mu daal di koy taxawal waaye yemul foofu noonu du ci combat yi du ci concert yi ak soirée yi waaye lépp loo xamante tey jii day dajale ay nit interdit nañ ko uh, ba ci li nga xamante ni nag moom moo di uh, yenn cérémonie yi ñuy faral di amal ci mbedd yi waaye port du masque Sénégal ngir mu daal di relever waat économie wam xeex ak li nga xamante ni moom moo di jàngoroy coronavirus. comme ni ngeen ko gisee coow mi nga xamante ni moo nekkoon ci diggante Mame Makhtar Gueye Jamra ak Rango coow boobee nag avant Rango di dugg prison la woon ñoom ñaar ñu sekkoon ay kàddu Mame Makhtar Gueye doon dénoncé comportement bi nga xamante ni moom la Rango yoroon muy col gu bon bi nga xamante ni daan na ko col ba pare di ko publier ci réseaux sociaux yi xale yeeg ñëpp doon ko teg bët waaye tamit mu daal di fay jógee defaat beneen gaaf ba mu tëggee soirée bi euh, ci jamono yi jàngoroy coronavirus bi mu nekk loo xamante dañ koo interdit woon ak lépp loo xamante xeesu bu rassemblement la woon defoon na ab sortie vidéo doon ci dut baaraamu tuuma Mame Makhtar Gueye ba yëkkati ay kàddu yu tegginewul sax doon ko teg ci noddam doon yëgle ni Mame Makhtar Gueye day faral di ñëw këram saa su nekk waaye nag euh, moom ak Rango jamono ji ñu waxee yéen daal nañ leen di invité fële na le euh, ca diwaanu Sénégal ñu daal di rafetal seen diggante Rango yëkkati na ay loxoom tàllal ko Mame Makhtar Gueye di ko jéggalu naan ko sama lépp nga seytaane moo taxawoon suñu biix te incha allah dinaa la seet si dafa mel ni nag seytaane daal ne génn ci diggante Mame Mactar Gueye ak kii nii di rangu ñu daal di wéyal suñu xibaar ci douane bi nga xamante ni moom nañu ñu fàtt bakkanam ci veillu tabaski bi ginnaaw ba indicateur bi ñu jàppoon ko daal di koy relâché waat ndax amuñu woon ci moom ay preuve waa section de recherche bu Saint-Louis nag daal di nañuy wéyal recherche yi ba daal di koy tegaat loxo moom indicateur ba d'après aveux yi nga xamante ni moom na def ci kanamu takk der mooy que ni douane bi da koo amee loon xaalis mu ñëw di ko fayeeku mu daal di bañ noonu rek la daal di jëlee pistolet bi jam ko benn bi dal ci bët bi beneen bi daal di dal ci jëbi bakkanam ci saa si tiitaange boobu nag moom moo ko poussé mu daal di dem woowi yeneen mbokk douanier mi waaye tamit jubali police daal di ñëw ni leen am na lu xew fii yuuxu tamit dëkkandoo yi daal di ñëw te at boobu def nañ ci benn constat euh, que euh, depuis trois ans douanier bi ñàkk bakkanam mi ngi ko doon wër gisu ko demoon na sax ba daal di koy déclaré nee nañu sax xaritam boobee di indicateur bi faat bakkanam yàgg na kaa jëlee ci ay jafe-jafe yàgg naa jël alal ju takku di ko jox ngir muy faj ay soxlam tabaski bi teew mu daal di koy fayeeku kooku ni ko bàyyi ba tabaski bi weesu looloo waral mu daal di askan ba nag def nañ ci moom ay témoignages yu rafet nee ñu douanier bi nga xamante ni moom moo génn adduna nekkoon na nit bu mën a dimbali doomu aadama alalam daawu ko boole at kenn néew doole yi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci koñam da daan faral di leen dimbali ci li nga xamante ni moom moo di dund rawatina xale taalibe yi daan ñëw ci këram saa su nekk da daan yëkkati ay cadeau di leen ko jox chaque année demoon na sax ba nekk coutume ci moom ko ñaanal yàlla fa mu jëm gënal ko fa mu jóge di mastawu ay mbokkam bu baax a baax di leen jaale ba tey ci wàllum jàngoroy coronavirus bi nga xamante ni moom moo lëmbe réewum Sénégal rawatina fii nii ci diwaanu Dakar sous préfet bu Dakar bi nag daal di nay jël beneen décision boo xamante ni nee na bépp autorisation boo xamante ni dañ ko doon joxe ngir amal ay rassemblement ndax gis nañu première vague bi ak deuxième vague bi yëpp donte dañ dafa amoon ay interdit yu ñu doon tere mais teewul ni nit ñi dañ daan nañu dem di wut autorisation ngir amal li nga xamante ni moom moo di seen ay activité cette fois yi nag moom amul benn autorisation boo xamante ni dinañ ko jox Sénégal sénégalais ngir ñu amal loolu ndax cette fois ci cas bi dafa gën a déborder ñu ci bari ñoo ngi ñàkk seen bakkan non seulement waaye hôpitaux yi dem na ba nga xamante ni dafa saturé donc sous préfet bi daal interdit na lépp loo xamante ni autorisation la gis nañu tamit nag ni am na ñu bari ñoo xamante ni ñoo nekk ca diwaanu Europe bëgg a dagg seen billet ñëw fii ci Sénégal ngir vacances waaye actuellement dañoo tiit que ñu daal di téye li nga xamante ni moom moo di vali daal di wéyal xibaar yi ci soxna Aida Mbacke mi nga xamante ni nag eh, ku dégg turam rek sa xel dina dem ci eh, soxna si faatoon bakkanu borom këram eh, ca novembre 2018 ba suñu joon yàlla tey ji mu daal di tëgg ci prison bu camp pénal démb nag nee na juge du chambre criminelle da koo daal di woo rek mu ñëw took waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom moo xewoon ñu daal di renvoyé li nga xamante ni moom moo di procès ba 6 octobre incha allah mais d'après avis yi nga xamante ne def na ko nee na jëlu woon intention faat bakkanu borom këram récent sotti ko ko ay vernis la yoo xamante ne dañ ko tegoon ngir defaraat li nga xamante ne moom moo di seen meuble lool la ko taalee ne ko ñun ñëpp dañuy génn àdduna comme ko nag ma takkal wujju noonu la seytaane di dikkee rek borom këram daal di génn àdduna mais c'était pas intentionnel loo xamante ne dafa jugoon ngir def ko ba pare mi nga mastawuwaat bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo di famille borom këram ñu daal di tëj xibaar yi ak waa sans limite ñu daal di xëy bind benn article wane benn vidéo ni kii nii di kilifa bu Y'en euh, dafa nekk di def trafic de faux passeport li nga xamante ni moom moo di passeport diplomatique yi ak faux visa ndax gis nañu ci benn vidéo muy wax ak benn waaye du joxante ak moom xaalis looloo waral waa sans limite bindu loolu nee nañu tamit nag am na benn plainte boo xamante ni teg nañ ko ci ndoor dal kilifa d'après li nga xamante ni moom nañu gis ci vidéo bi nag dara leeru ci ça ne ni kilifa day def trafic de faux euh, passeport wala leneen ak leneen en tout cas ñoo ngi doon joxante xaalis di waxtaan ci mbirum affaire ñoom ñaar li nga xamante ni moom la ñu bind mooy affaire trafic de faux passeport nee nañu tamit euh, plainte mi ngi ci noddam ak lu ci mënti am daal kii nii di kilifa donc moom moo ko mën a leeral ndax actuellement ñuy waxee yéen ni vidéo bi ñëpp ñoo ngi tàmbalee di ci jot kilifa moo ko def am def ko moom moo ko mën a leeral ba tax na mbokk yi fi la ñu yem ak yéen ci seen xibaar Actu Net jox leen dig daje ba suba ak jàmm incha allah jërë ngeen jëf.